audience bi ñoo amal ko lu ëpp fukki waxtu ak ñett ku nekk daal di défendre sa position ci li nga xam ne ni moom moo tax ba ñu yóbbu clamé bi ca cour suprême. li ci xew yëpp gis ngeen ko jalgati nañu yoon tere nañ ko dem audience atte nañ ko. Sonko ne s'est jamais présenté. Sonko mësula teew ci benn audience moo xam première instance naka noonu appel ndax amul benn lay. parce qu'il n'avait pas d'argument, il n'avait pas de rapport. li avocat Ousmane Sonko yi ne it. ci loi bu ñu sukkandikoo ngir daan Ousmane Sonko dëppoowul ak constitution bu Sénégal jot nañ ko waxtaane it. amuñu sañ-sañ atte atte bi dañ ko war a jébbal li ñuy naan conseil constitutionnel ñoom ñoo war a mën a xam loolu. ils n'ont ñi daanaka comprendre ñu dara ndax càkkutéef boobee dañu ko yéex dugal. cette gannaaw bu avocat yi jëlee kàddu ci lu ëpp fukki waxtu cour suprême daal di jël dogalam. la waxoon yëpp àttekat yi dañ koo teggi jël ko sànni ko fële kon bokk ñu jàpp ñu dëggal la nga xam ne loolu lañu ñu àtte woon ci maanaam cour d'appel de Dakar. naam avocat général dafa sàkk woon ngir ñu neenal arrêté bi ñu jël ci cour d'appel waaye cour suprême moom dafa déggal lu ñu daan Ousmane Sonko juróom benn weer yu mu dul tëdd ak ndàmpaayu ñatt téeméeri million yu mu waroon jox mambay Mbaye Niang tax nag ba Ousmane Sonko du mën a bokk ci élection yi ñu jëm. décision bi elle est éliminatoire pour monsieur Ousmane Sonko. tik L30 kon boo ko xoolee tëral na conditions yi nga xam ni bu ñu la condamné ci 6 mois juróom-benni weer effectivement yow juróomi at yi ñëw. maanaam dañ lay dind ci liste électorale yi. ñu fàttali rek ni décision yi nga xam ne ni moom mooy tukkee ci cour suprême kenn mënu koo dem clamer ji feneen xanaa rek ñu évoqué ay erreur wala lu ñuy woowee rabat d'arrêt bu ñu sukkandiku ci article L yan bu loi organique bi nga xam ne ni ci lañ taxawalee cour suprême.